gars yi xanaa Barham Dias yéen ñi ko gis fonde lay ree rek di ko añee loolee daanaka forme bu mucc ayib ndax doole la wala ndax poids bu ëpp la danañ ci indi ay leeral léegi ci xibaar yi Ansu Fati jàmbaar dëgg la dëgg sax ba romb jàmbaar moom moomee di Ansu Fati danañ ko yaatal waaye ab équipe ba moo puusul paasul gars yi def leen seen i abonnement yow mi door a ñëw yow mi ko def ba pare cant ak ñeel na la information yor te wóor Aladji Malick TV ngeen gis ko noonu footballkat Real Madrid ñu mën ci jukki ki nga xam ne moo nekk kii la di euh, Birahim Diaz ak kii di euh, ki nga xam ni euh, moo nekk Rodrigo Gonçalves gars yi entraînement ba ñuy def na ko Real di defee léegi gars yi dañoo yekk cere doolu ñeex saal yi dañ ko gën a renforcer machine ya bari na lépp loo xam ne jëm na ci màllu maye doole ak li nga xam ne maanaam ko fiir muy xay xay yi loolee gars yokk nañ ko bu baax a baax ci salle entraînement ba bu ngeen gisee ngeen gis ni salle bi ak yokkute am na ci maanaam matériel yi gars yi dañ ko gën a dabbar ñi bu baax a baax ngeen gis Brahim Diaz mu taxaw noonu ni jonn yéen ñi ko doon gis bi muy dugg uh, fële ca meilleur club du monde booy yi dañ ma koy tere ni ma bàyyil di wax loola waaye kon ca équipe bu Real Madrid ba loole ngeen gis ko taxawaayam am solo bu baax a baax fi mu toll nii ab cuuj la woon waaye nag daanaka fi mu toll nii ginaar guy kës la mën naa doxal bu baax a baax ci équipe bi la di Real Madrid groupe ba ña nga noonu daanaka entraîné nañ complet waaye Rudi euh, kii di euh, maanaam euh, Rudiger moom it bokk na ci entraînement ba Arda Güler moom it cëpp cëppi na waaye ba léegi gisaguñ ko ci feuille de match bi Carlo Ancelotti di indi ak doomam teyit loole lu jàllu la bu ko defee gars yi namm nañ gone gi premier pas ci Real Madrid loolee ñu koy xaar bari na lool premier pam am jàllul waaye yeneen yam ca toftal dugal na ci ab bit moom mii di gone ak Brighton Albion jàmbaar la waaye ab équipe am ni ko waxee léegi puusul paasul ab équipe am demul démb nërmeelu na ñeenti bal ci dara gone gi nag góor góorgóorlu bu baax a baax dugale bi yam jël caractère bu ko defee mu mën a delsi ca catalan bu fa delsee lépp mën a doon féex ci moom ndax moom moomee daanaka football kat la boo xam ne terrain bu mu dem dana yëngal gësam